waaw euh, Ndiaga Diaw responsable départemental de l'UJTL de Thiès membre du comité directeur du secrétariat national et de la cellule de communication du Parti démocratique sénégalais je suis plateforme Sauvons le Sauvons le PDS. waaw mën nañ ko leeral pour la bonne et simple raison que ñun bi ñuy déplacé wu di ñëw ak suñuy militants ak suñuy responsable dañ doon dem ci réunion politique bu parti démocratique sénégalais même si xam nañ ne depuis le départ. Thiès Saliou Dieng ak bandam muy Famara Senghor dañ fi ñëw def fi loo xamante ni benn responsable Thiès àndu ci ñu nome fi ay responsable kenn d'accordu ci ñu bëgg a continuer ci forcing boobu pour ñëw installer les structures horizontales et verticales mooy structure des jeunes des femmes des anciens des cadres des enseignants et cetera alors à notre surprise bi ñu yegsee Cheikh Fall mbay pour le citer parce que il faut aussi ñuy wax wax yi mu leer moo ñëw ba ci man ne tey dinañ leen wan lu ngeen musul gis ma ne ko loolu mi ngi ci suñu kanam on verra Ibrahima Tall di suñu responsable dëkk Thiès Nord dañ ko ciblé woon pour bu ñëwee ñu attaqué ko dal ci kawam violenté ko gaañ ko et ce c'est ce qu'ils ont fait Bara Faye moo mobilisé jeunes yi indi leen foofu ñu agressé Ibrahima Tall gaañ ko Demba ak Mor Diouf ñoom ñoo ko encadré ci loolu jàppale ko ci boo mu ngeen seetaanee vidéo bi Mor Diouf wax na ni dañ leen dóor ba ñu daw loolu la wax mu nee na ñun dañu dóor ba ñu daw au contre par contre ñun dawuñu dañu gaañ suñu responsable talatuñu xeex nu ñuy kii situation bi mu toll dinañ dinañ continuer ñun di di xeex li ñu tal mooy indi nit ki nga xamante ni tey mi ngi ci diggante dund ak dee gis ngeen image yi ni ñu ko ni ñu ko blessé maintenant nag le reste mooy procureur ci boppam dana jël dossier bi la ca la ca yoon war la ci yoon warloo dana ko def parce que ku xool Ibrahima taal fii ci ak situation bi mu nekk bu la tiitalul war nga am beneen kàddu boo wax lu dul dañ leen a dóor ba mu daw. mais dañ koo dañ koo gaañ ba yàq nañu kanam gi ay sang yi dafa perdre conscience mais médecins yi ñu ngi ciy def li nga xamante ni moom la ñu mën le reste aussi ñun ñu ngi fi duñ ko fi bàyyi dinañ taxaw. taxawu ko comme en tant que responsable ba mu génn ci situation bi maintenant nag le reste commissaire bi nee na dimanche dina dellu si Thiès mais li ma mën a wax mooy li ñu dal tey moom ba àdduna di tukki dootuñu dalati parce que cees lañ dëkk. de toute façon ñu fu mu war a yegg yegg na fa parce que tey bu fekkente ne da ngay jox ay nit ay responsabilité dañu war a nekk ay nit yu am retenue ay nit yoo xamante ni dañuy am yar am teggin dal mais ay mag yu yaradiku ñàkk kersa ñàkk teggin. ba pare di utiliser ay parce que tey ñi ciy gaañu même ñi nga bu fekkonte ne beneen camp bi ñoo am ay ñoo ñu di ci gaañu je pense que dañ ko war a regretter mais ñoom seen yoon newu ci dañuy jël ay xale indi leen jox leen xaalis pour ñu ñëw di attaquer ay responsables pour violenter leen politique la c'est de bonne guerre def nañ ko attaquer nañ songu nañ nit ñi gaañ nañ leen dëkk bi nag dafa am yoon bu fekkente ni dañu la def li ñu def nii Ibrahima Tall am nga droit saisir justice dinañ saisir justice ñu dem ak ñoom ci yoon. non nous avons un chargé de de renouvellement des cartes qui est un bandit un délinquant qu'on a nommé à la personne de Saliou Dieng qui est en train de semer le bordel dans le parti c'est ça la réalité. kooku tey nga xamante ni ñun bi ñuy xeexal Karim Wade gisuñu ko woon moo ñëw tey di procéder à des nominations parti démocratique sénégalais musul am nomination li am mooy base bi ñooy choisir ku ñu bëgg mu jiite leen. par contre Saliou Dieng mooy toog Dakar di nommé moo tax ñun ñu ñëwee ci réunion bi c'est ce qu'on avait dit au commissaire comme que da ngeen a moo gën parce que Thiès ñun duñu accepter ñu ñëw ba Thiès di ko fi defee ñëw ba Thiès di ko fi légitimer non on on l'acceptera pas def seen nomination maintenant Saliou Dieng moomu tey moo nekk di détruire le parti démocratique sénégalais comme pas possible c'est pourquoi nous avons créé ñun sauvons le PDS pour le faire arrêter et on va continuer le combat bu ñu foogee ni lii daf ñuy démo daf ñuy démotiver wala daf ñuy démobiliser ñu ngi trompé wu lourdement nous sommes aujourd'hui plus que jamais déterminer engagés à poursuivre le combat ba am ci ndam mais gis ngeen li xew tey Mor Diouf mënul jiite waxuma la parti mais mënul jiite sax kër bay jiite parti kooku nga jël ko ne moom moo ngay def responsable fédération urbaine par nomination donc nomination lépp les textes sont clairs à défaut de consensus, aller au vote. Il n'y a pas eu de consensus, il pas eu de vote. Donc il y a nomination. Donc c'est illégal. lu illégal nag ñun mënuñu ko accepter mënuñu ko moo tax ñun considéré wuñ Mor Diouf que responsable la Thiès Thiès Thiès Ouest comme fédération urbaine Thiès Est Magay Sarr lañ jàpp ne mooy suñu secrétaire général donc jusqu'à ce que ñu toog régler le problème man jàpp naa ni li li yéexal ñëwu Karim Wade Sénégal bokk na ci lii parce que lii mu fi nar a fekk je pense que munu ko munu bala muy ñëw dañ ko war a rek non jàmm ñu ñu ñëpp jàmm lañ bëgg mais jàmm aussi day ànd ak dëgg te comme que ñii naruñu dëgg bëgguñu dëgg ab euh, lu lu teguñu seeni mbir ci dëgg ci ay njuuj njaaj ay lobby ay du n'importe quoi moom lañ teg seen ay mbir mais on va faire face de toute façon demain on va on convie la presse toute la presse à à à une conférence de presse demain incha allah on va se prononcer sur la question avec toute la presse beneen bi ci des aussi li ñu jëlee ci procureur dinañ ko wax en tout cas lii kenn mënul fexe ba ñu bàyyi ko noonu mu jàll. ah oui parce que Ibrahima taal mii yàlla na ko yàlla may mu jóg loolu la ñuy ñaan mais leneen aussi mën na ko ci dal dañuy toog di seetaan ñuy jël suñu ay responsable di leen faagaagal pour des loo xamante ni c'est des questions purement politiciennes on ne peut pas mënu mënu mënatul wéy mënatul continuer on va prendre les dispositions. dañ ko ci jam dañ ko ci jam dóor ko ci ay briques. paaka lañ ko jam xaw ma beggu xaw ma yooyu noonu dóor ko ay brique ba nga xamante non maa ngi taxaw maa ngi taxaw ñi ko def groupe de personnes lañ mënuñu identifier tout le monde mais am na ci ñoo xamante ni identifier nañ leen maintenant le reste nag après am na am na aussi en tout cas du lu ñuy bàyyi mu jàll